ndax réew fu ñu toll léegi dañuy dégg ñu naan ah science ak technologie de léegi moo yore réew yi ñun nag ñu gis ne suñu réew bachelier yi jóge ci science yi ñu ngi wàññeeku ñu ne ah loolu kon foog ñu toog xalaat ci seet lan la ñu mën a def ba nga xam ne ñu nit dañuy am ay bachelier scientifique ak tech ñu nekk ci science ak yu nekk ci technologie ñu xam aussi ne bachelier littéraire yi ñu yor du problème ñoom dañuy ñëw tam di jàpp ci réew mi li mu war a doon ëllëg léegi nag comme ñoom ñi ngi fi ñuy ay ndaw yoo xam ni foo leen soo leen tabaxee foo leen jubal dinañ fa mën a jublu ñu ne léegi nag ñooñu il faut ko ñu seet université bu mel ne université wu Thiès nga xam ni science ak technologie ak métier lay jàngale ah, université boobu naka lay fexe ba bachelier littéraire yi nga xam ni ñu ngi fi naka lañ leen di mënee dalalee jàngal leen tàggat leen ba ëllëg ñoom it ñu mën a nekk ci agronomie ñu mën a nekk ci ci ci science de la santé ñu mën a nekk ci science de l'ingénieur loolu moo tax nag atelier bi nga xam ne ñaari fan lay durer ñu bëgg nag ñëpp ku nekk indi sa xalaat étudiants yi it mën a indi seen xalaat ba nga xam ni ñun ñëpp dinañ mën seet ne ah lii daal suñ ci jubloo dinañ fexe ba bachelier littéraire yi dinañ leen mën dalal te dinañ fexe it ba suñu réew fu science ak technologie toog suñu réew it dana fa mën a toog. comme ni ko madame le recteur wax dañuy xalaat réfléchir ci bachelier yi ñu am ñuy bachelier littéraire yi naka la ñuy def ko leen ay place yoo xam ni ay jumtuwaay xam ne dañ fa a jàng jàng bu

moo tax université pour ku sa recteur ñëwul tam envoyé représentant pour déglu li fi wax ci encore je ngi koy rappeler encore di remercier madame le recteur remercier université de Thiès ndax ñoo jël initiative organiser ko ci seen xaalis ci un moyen matériel. orienté wu ñu bachelier littéraire ci ay services scientifiques dañoo ubbi ay filière yoo xam ni mën nañu jël bachelier littéraire dina ngi dugg ci ay yenn filières yoo xam ni mën nañ faa jàng. bachelier littéraire demul ci filière scientifique dafa dem ci filière bi nga xam filière littéraire mais l'université, ne dañu pas ay filières qui xam ay qui fa ce que li nga peut-être manqué nous